tey ñu fi tax a ñëw jàmm ak salaam la mooy inauguré point nano crédit bu rafet bi nga xamante ne maire jox nañu ko pour jigéen ñi ak ndaw ñi DER dugal na fii lu toll région wu Diourbel deux milliards sept cent millions daanaka Diourbel Touba moo nekkoon sama deuxième région bu ma visité après Ziguinchor bu ñu tàmbalee DER bi ñëwoon naa fii euh, boobu màggal baa ngi doon ñëw 2019 ma dem Cheikh Sëñ Mountakha boobu ñu dugal 500 millions si jeunes yi ñu demoon Mbàkke euh, gars yi di liggéey di fay ñuy dolli tey am nañu minimum 2 milliards 700 millions de francs CFA yi nga xamante ne DER dugal na ko si biir région Diourbel te département Mbàkke moo si ëppale 70 pour cent yëpp fii la ñëw parce que activité économique bi poumon économique bi fii la et loolu bu weesoo mun naa ne tamit nanu crédit bu mu dooree euh, région bi ëpp la ne si ñi nga xamante ne Sénégal gi yëpp ñoo si gën a jël Mbàkke bi ñu jógee sànq am na lu toll 73 millions yu ñu fa dugal pour mill cent bénéficiaires fii euh, maire wax na ko léegi dugal nañu lu toll 42 millions pour 672 bénéficiaires soxna si Seck wax na ko léegi point bu ñu ubbi octobre rek léegi 28 octobre un mois dugal nañu toll 22 millions 451 millions. boo boolee yëpp si 4 mois daanaka décaissé nañu lu toll 140 millions de francs CFA loolu xaalis bëri la et boo leen continuer nii nu ñu def ak marché central au poisson bu bikin tey ñu ngi tollu si presque 2 milliards en un an jigéen ñi dañuy ñëw lépp 50 000 100 000 remboursé boo remboursé tey wala suba wala fin du mois da ngay doublé. beneen technique mooy boo leen di ñëw mun ngeen ñëwandoo 5 10 booloo ku nekk jël 100 000 wala 200 000 boo leen ko booloo mooy 2 millions ngeen dem def seen commerce seen activité remboursé muy continuer. am na euh, benn daam bu ko wax léegi mooy groupe bi groupe WhatsApp bi maa ngi ko doon wax samay équipe. man leen tey boo demee euh, région bu nekk maa ngi ko xool si boutique pastorale yi ak Djirfel éleveurs yi femmes éleveurs yi fu nekk am na tontine wala am na calebasse chaque dimanche dañuy daje xool natt bi kan mooy jël kan mooy remboursé kii jël 100000 kii 200000 kii 1 million. technique bu ñu buggee indi maanaam mooy loolu yëpp dañ koy def mu digitalisé boo leen booloo ngeen nekk 100. ngeen am dix millions ci seen calebasse bi ñun dañ di fekk foofu dugal leen dix millions yéen seen bopp ngeen gérer ko soxla leen chaque bureau parce que xaalis bi ci compte lañ koy def da ngeen am seen carte de membre carte membre bi day am photo day am tour fédération bi ba pare ngeen am encadrement ak formation ba pare ñu ngi xool nu ñu ci dolli CMU ak assurance maladie ak épargne loolu yëpp boo ko amee carte boobu noonu dana tax nga am sa mil 200000 300000 500000 boo amee euh, ordonnance nga mun ko si fay boo feebaree CMU remboursé la ba pare boo buggee transféré entre Wave Orange mani Wizall ñu ngi siy liggéey mu yomb si yow dootoo sax soxla ñëw fii lépp da koy def si sa téléphone jënd jaay remboursé bu soobee yàlla fii ak janvier si loolu la ñuy liggéey pour daa door ko Touba ak Sénégal yëpp nga jigéen ñu mun liggéey beneen bi li ma mën wax mooy wax naa si léegi ak madame Mbacké étant ne que Touba département euh, commune bu rëy la Mbacké département bu rëy la benn point bu doyul moo tax dinañ xool SEDAF nuñ fay ubbee benn point nanu pour yeneen jigéen ñi mën dem foofu am aussi ay financement loolu bu weesoo dinaa xool aussi ak maire ñu xool au niveau du marché central au poisson parce que tey secteur yoo xamante ne fa la remboursement yi gën a bëri fa activité bi gën a bëri si Sénégal gi mooy quai de pêche wala marché aux poissons yi femmes transformatrices yi femmes mareyeuses yi micro mareyeuses yi euh, mareyeurs yi borom oto yi ñuy dem jënd jën jaay yóbbu ko ba Gambie yóbbu ko ba Mali ñooñu lañ bëgg ñëw jàppale leen ñu am financement def point si biir marché bi bu soobee yàlla et wax naa si sànq aussi ak maire euh, Abdou Mbacké Ndaw pour xool nu ñuy liggéey entre intercommunalité bi pour que sàncaani ñu mën a am point ñu mën a leb nga am nga jox leen certificat de résidence fu ñuy liggéey ñu mën a leb fayee foofu ndax lu ñu soxla lu ñu président Macky Sall sant mooy jigéen ñi ñuy xëy 4 heures du matin am na ñu ko wax am na ñu fi doon fanaan euh, bi ñoo na dañ fa doon rang 6 heures du matin ba midi 300 400 personnes rek pour liggéey nga jox laay dañoo am jom tey ñu ngi si 100 pour cent remboursement Linguère laa jóge samedi si mhm. Aly Ngouille Ndiaye ñu am presque 40 millions 72 millions 40 pour cent de remboursement 100 pour cent euh, astafurlah Ziguinchor euh, ak maire Abdoulaye Balde tey ñu ngi si ñaari ëppi bureau ñaari agent si même bureau bi ñii di gérer jigéen ñi ñii di gérer ndaw ñi ñu ngi si en deux mois 150 millions décaissés et taux de remboursement bi tamit dépassé les quatre vingt pour cent. donc monsieur le maire li ma la mën ña ñaan rek mooy liggéey ak femmes yi. Mm. ak population yi sensibiliser leen expliquer leen comme ni ko Aïda waxee ak ñëpp affaire bi boor atti fay du alalu nguur mën naa ko wax man président Macky Sall laa fi toogal mais président Macky Sall moomul xaalis man moom ma xaalis Abdoulaye Khare nii moomul xaalis honorable nii moomul xaalis. xaalis askan wi ñoo ko bokk budget wu État la te ku yaakaar ne boo lekkee xaalis boobu doo fay juum nga ndax xaalis boobu du mës a fay ñun bu ñu fi jógee beneen procureur bi fi ñëwee dina la woo te boobaa di nga fay donc bu soobee yàlla li ma bëgg mooy ñu liggéey bu ñu continuer nii bu soobee yàlla wax ma sax un milliard mais activité économique bu ma fi gis plus de deux millions cinq cent mille personnes ak. cérémonie religieuse yi gàmmu yi màggal yi commerce bi consommation bi fruits et légumes bétail viande production laitière o c'est-à-dire céréales transformation céréales gerte bi euh, huile segal bi mun naa waat ne fii mun nañ fi dugal 3 milliards si at boo leen liggéey di rembourser bu soobee yàlla ñu organiser ñu xam ne affaire bi pour man course la course de fond la. boo ñëwee tey nga leb cinquante mille boo ko remboursé jour boo ko remboursé mun nga am cent mille boo ko jëlee nga remboursé waat mun nga am deux cent mille ba di nga dem ba yaay dem ba trois cent mille léegi dañuy din plafond bi sax dañ koy ba cinq cent mil à partir de janvier bu soobee yàlla. ba pare taux bi ñu ngi xool nu ñu koy calculer pour yóbbu ko ba six six mois nga xamante ne boo amee capacité anticiper fay baax na mais sinon mun nañ la may ba six mois. loolu bu weesoo am na beneen produit bu ñu am mooy autonomisation day dem ba un million pour jigéen ñi wala financement TPE ak PME mooy entreprise yu ndaw yi mun na dem ba 5 millions ba 6 millions ba 10 millions. loolu bu weesoo it am na financement chaîne de valeur ñu bëgg def ay usine usine ndox usine farine usine gerte 50 millions et plus loolu yëpp palette bi nga xamante ne dinañ ci liggéey ak euh, autorités yi SEDAF ak ministère la femme. ministère de la jeunesse ak travers les pôles emploi pour que vraiment monsieur le maire euh, crédit bu mu donaat problème fii euh, si Touba. loolu laa amul li may wax euh, di nuyu ñëpp di sant ñëpp seen tur ak seen sant.